jërë ngeen jëf sunu mbokk internet yi mbokk yi nag yéen xam ngeen ne saa su nekk Baol info point net di wax ne Ousmane Sonko njiitul Pastef ma ngi gën di am doole fii nga xam ne moom mooy Touba naam am na ñu bari ñoo ngi wéy di ko diaboliser ak ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi liy firndeel ne Ousmane Sonko saa su nekk doole ma ngi yokk fii ci Touba cortège Macky Sall bi bi mu fi jaaree. askan bu baree baree bari dañoo génn di yuuxaloo cortège bi ba pare di wax sonko sonko kon mbokk yi ñu daal leen di présenté vidéo yi nga xam ne ñu bari ci Touba ñoo génn tey jii di yuuxaloo cortège u Macky Sall bi. am réew boo fi nekkee ba kenn bëggatu la nga war a dem nga romb dëkk bu tal na Touba ñëpp naan sonko ak dani ñëpp xoolal ñee ñëpp. ñëpp da sax xam nga ne lii war naa daw ay Macky demal ñibbi Macky démissionnel Macky démissionnel waay ah, ah xam nga ne lii ñu tudd Sonko Macky joxe lekkay ay Macky lii Macky lii dëkk bi Touba ak bi nga jóge ci Fouta ay Macky demal ñibbi Macky joxe lekkay seera war naa daw de ah Macky xoolal lii xam nga na ngay romb ñëpp di Sonko est-ce que déglul fii fii Sonko fi ne wala Bougane Gueye Dany ci corniche Daara Jolof nii romb yi baa ngi noonu waaw muy romb ñuy Sonko Touba yëpp àndandoo Sonko population ba mu demee nii waaw xoolal ñu ngi noonu. Sonko Sonko wuu wuu wuu wuu Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Touba Touba Touba Touba Sonko Sonko Sonko Touba Sonko Sonko Sonko Sonko et Touba Mbacké Touba Touba Touba Mbacké Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Whoop Whoop Whoop Sonko Sonko Sonko Sonko hop hop Sanka hop Sanka hop hop Sanka hop hop hop Sanka hop woo Satch up Satch up